nuyu nañ leen bu baax di leen ziar yéen ñi safoo Dakar Buzz TV ñamaan mbégte jàkkaarloo waat ak yéen comme ni ñu koy defee saa ne du nu ne guléet parce que chaque jour rek ñun dañuy bëgg di ko seet di waxtaan ak moom seen honorable ngeen di am foofu ñu seet waat ko ñun waa Dakar Buzz ngir rek fas yéene am ak moom waxtaan bu am solo itam am ay point rek yu ñu xaw a leeral moo tax ñu daagu si fii seet si ko ñu bàyyi la rek honorable nga daal di nuyoo ak amee internet Dakar Buzz xanaa di leen nuyu rek euh, Dakar Buzz di leen ñaanal yàlla. di leen wax ni welcome back to my house eh, yéen dama leen di compter ci xale yu am jom yi ndax xale yu bari duñu yeewu ci dëkk bi heure bii mm-hmm. mais yéen a ngi góorgóorlu eh, yal na leen yàlla jàppale di nuyu seen patron di nuyu sénégalais yépp mm-hmm. di fi ñaan yàlla sunu borom bi subhanahu wa mu wàcce fi jàmm mm-hmm. ñaanal sunu kilifa diine yi ndax duñ leen mën di fàtte di ñaanal ki yàlla teg nag ci boppu réew mi moom président Macky Sall. di ko wax na dund. gu ànd ak wér ndax yaakaar nañ ko ci réew mi te jox nañ ko suñu confiance li ñuy def mooy yal na ko yenn wi jikk te jik Sénégal di ko ñaanal moog njabootam gépp yal na nu mucc mooy Sénégal ah xanaa di la bàyyi rek ñu commencé rëkk ñu daal di commencé ñu rëkk ñu rëkk <laughs> waaw <laughs> honorable nan nga gisee situation Sénégal actuelle jamono ji ñuy wax ak yow ci ay bés yu ñu génn mhm. ak tey ji nan rekk nga gisee situation bi fii ci Sénégal euh, xool bu naqari xool bu jeex mhm. te àddina dafa avancé mhm. may xool samay doomu dëkk jéemu ñu xippi seen bët xool nañu góor góorgóorlu jéem a defar sunu réew mi ànd ñun kenn président Macky Sall moom ci ndum mënu ko defar. Mm-hmm. il faut mu am ñu mu àndal ñu defar réew mi. Mm-hmm. li xew ci réew mi nag xoolatuñu lu baax nit ñi fu mu gën a bone rek foofu la ñuy xool. Mm-hmm. te loolu jëmalewul sunu réew mi kanam euh, ñun li ñu dal tey ñu tënkuñu. depuis ci ay maam mënuñu dépasser lu bari parce que fi ñu tënk dañu brainwash. doomu tubaab yi di avancé doo gis benn jeune tubaab bu am dix-huit ans dix-neuf ans di ñëw Afrique ne day xos lu amut dañuy toog seen réew jàng wut lu ñu def nit dangay wut loo def ñu ne Fatima kat ñu ne Dakar Buzz la ne loolu mooy liggéeyam mais Coura lan lay def asgor daf ko war a daw situation bi xem ci réew mi dara indiwu ko bu dul seytaane nekk ci réew mi di ko luux luuxal sénégalais yi nañu wake up réew mi ñoo ko moom xamuñu xeex xamuñu xuloo yu bon yi am léegi Sénégal nii kenn ñemeetul wax ak nit koy waxal yaa ngi tiit mu ngi lay enregistré man nag am na yu bari yoo xam ne duma ko seetaan ci réseaux sociaux bi lu nit ñi xamut audio Adji saar bi ñuy wax. barki Serigne Babacar si mi ngi nii sama ginnaaw dégluwuma ko. dégluwoo ko ba ah dama am jot. justice yor dara. ma war a xëy dem liggéeyi. war a xëy xool nu ma sama doom yi nekkee Amérique ne. Mhm. xëy di xool li ma lijjantee Sénégal te li ma dugg. ma bàyyi ko fi. yi président Macky Sall di inauguré ci dëkk bi nit ñi di ko gis ñu war ko waxtaanee. Mhm. yokk ko doole ñu puus. Mhm. wax ak ministre yi ñu jox alal ji ñu liggéey liggéey bi. Mhm. ma jàpp at aw lu may def sama live bul dul di déglu audio Adji Sarr MC Adji Sarr eh anaaf is anaaf doy na talatuma ko mu ngi ci loxo justice pare naa ci ñoom ñoo koy lijjanti léegi du man. lu ma ci wax dama bëgg di wax ak am jot. mais audio yi tasaaroo na. parce que ku nekk jot na vingt ñii naan vingt six audio ñii ne vingt sept boo déggoo dégloo ci li Adji Sarr wax dafay bu sa sëgam moom la parce que am na ñuy werante moom la du moom mais audio yi ñu dégg MC partagé ko. ñu ngi mhm. dégg ci ay kàddu muy wax ñi mu sekkal dara ñëpp ñi nga xam ne tudd na leen. benn audio bi mujj nii. Mhm. dégluwuma ko. Mhm. mais ku ñuy wax ab Nguer moo ma nettali. te nit buy nettali na ma sénégalais yëpp déglu. Mm-hmm. nit buy nettali su wax ba amee dëng-dëng da koy xam. Mm-hmm. bu fekkee boroom xel nga. MC Hama rappeur bu perte bi woyu bi bande bi man Coura Macky maa ko wax bëggkatu xaalis bi wutkatu dërëm bi. Mm-hmm. dafa jóge Nigéria ay bi fekk ko fi ba mu ñëwee mu dégg aji Sarr waatee waajuram. mu woo aji saar moom MC senegal laay waxal de. Mhm. du may waxantu lu ma xamut. mu ne ko aji Sarr mu ne ko naam mu ne ko man la Baye Mbaye MC ñu waxtaan comme doomu sëriñam la ñun mhm. da xam dañ ñu brainwash. Mhm. boo gisee sa sëriñ dangay dof yow. ñuy waxtaan mu ne ko ku lay dimbali. aji ne ko man day kenn dimbalewu ma damay am sax léeg ay problème. mais am na liste buñ ma jox ay ministre pour ma woo leen laaj leen ndimbal MC ne ko bindal ma tur yi bu subaa man xam naa ministre yépp ndax ci Macky laa nekkoon léegi bu subaa nga liiral ma tur yi dama jàpp man dinaa leen woo am na ñu bari am naa seen numéro mhm. ci ëllëg sa mu woo aji ndekete pare na pour enregistrer ko ni ko aji mu ne ko ah, mu ne ko limal ma tur yi ma doon wax démb aji commencé di lim mu ne ko photo list bi nga yónnee ma aji photo liste bi yónnee ko mu ne seize personnes yëpp ajee ko wax ni dafa tëdd ak ñoom nii la demee ci biir wax ji nee na ko ñii ñëpp bu ma leen woowee di nga laal lu mat cinq cent millions ñu ànd dem Singapour ma takk la ñu blow blow la wax doomu sëriñ blow moom MC ma di ko wax ni ko MC waxoon naa la ko li ma yor ci ojo MC fii ci sama téléphone bi bu ma la ko tegaloon doo ta waxu MC MC di nga judd ci nit te doo ca bokk ci ñëpp lay dal nag human being di nga gis sa doom muy def yoo xam ne yow danga naan ndax kii maa ko jur mm-hmm. te yaa ko jur MC dafa bëgg a yee fitna ndax dërëm wut na occasion bu ne Baye Mbaye MC moo ma wax yàlla mi ngi may dégg barki sëriñ Babacar Sy ni ma dama mere Macky Sall te man APR laa dama wooteel xeexal maki ba mu gañe Macky Sall ñu am suñuy jàng mu yónnee ñu ku nekk cent vingt cinq mille Marème Faye ku baax la aw ma dara lu ma koy wax ndax am na ku feebar mhm. ma boole koog moom mhm. Marème fay fajal ma ko ba mu mat mais Macky Sall dinaa xeex ak moom ci yëfu aji Sarr yi ma ne ko bàyyi mbay MC mhm. waaye lii lu ci yoonu Macky yow xam nga Macky Sall li mu yenu bay toppatoo aji saar mi ñu viol te ñu viol téeméeri nit ci dëkk bi mhm. la Ndeye Saly Dieng waxoon ban ko yuuxu mu ne du aji Sarr rek lañu ñu ci dëkk bi mhm. man jigéen laa ñëpp laa jiite am na liir bu am ñetti weer sax bu ñu viol kura mënuma concentré wu rek ci aji ñoom ñëpp laay jéem a gérer Baye Mbaye MC man Koura Macky ma ni daa doon wure far wure wa këng ma bàyyil ko message booleen pare dina leen tegal lépp mhm. Baye Mbaye MC mu maa ma ko danga fekk ay jigéen yu jàmbaare yu la gën a kacapan laa ko wax xeex ba fii mhm. ci affaire aji ndax jigéen la te xam nañ liy daw ci Sénégal mhm. borom alal yi dañuy téye xale yi ndaw yi di leen tëddee te seeni jabar duñ ko yëg même si réseaux sociaux yi da ngay dégg ñu ne Ousmane Sonko am na ndam parce que ku dégg Adji Sarr ni mu waxee par rapport ak audio yi mu teg daf ni carrément complot bi ñu ci bokkoon ñëpp dinaa lim seen tur ci la daal di limee tur yooyu maa fi xam lan mooy ndam Ousmane Sonko mm-hmm. mooy adiyeen yi nu koy laaj ni ko Adji Sarr mii toog nee na sa man yu moo nekkoon ci moom ba muy dem hôpital. pour nga setal sa bopp jox ñu ADN. ADN du deret rek dañuy jël coton-tige dugal sa gémmiñ def nii pare nga. ñu xool ndax yaa ko moom mu ne defuma ko. ñëpp jour bi muy dem ñëpp senegal yi yëpp seen attention yëpp lu war a xew la ñuy xam. Ousmane Sonko génn. ni Adji Sarr lépp li mu wax dafa correct mm-hmm. est-ce que yéen dégg ngeen loolu mm-hmm. xale bu yaru la xale bu teey la te lépp li mu wax ci tribunal bi dafa correct man ci laa bàyyi wax ji correct yéen ñi dégg français mooy lan man ma wax nga ni ma dama correct li ma wax dafa correct mooy baax na Ousmane Sonko man yii ay Baye Mbaye MC yii di wax yëpp ñi ci live yëpp ñoruma man dama tàyyi ci wax ji deux ans laa ko wax damay move on mi ngi ci loxo justice du ma sonal sama bopp li xew di avancer le Sénégal moo ma ñor. mais mais dafa nekk cas bu sensible parce que ku nekk rek da ciy génne di wax ojo yooyu est-ce que am nañ certitude que Adji Sarr la. ci li ma dégg nit ñi wax nee naa la dégluwuma ko. Mhm. am na ñaari nit yu ma yónnee démb rek am na ku ma ko yónnee waat dégluwuma ko. maa fi boo bëggee dund ci jamono bi ma wax la ko tey moytu réseaux sociaux bi ñu yónnee la vidéo amin audio ni la baatu kure Macky la mën nañu sam sampale sama baat technologie mën nga wax ba pare yow ñu jël sam sa baat yow teg ko ci sama baat may ngay wax ñu ne yow la te maa doon wax yëfu aji saar yi ci liñ ma nettali yu bari dañ booy déglu wax bi day dagg dañuy couper di coller Pastef dañu aay su fekkee ni bëgg nañu xam turuf bi sénégalais yëpp dëgg bi ak 14 yi dee bu leen fàttee rey nañu yeneen nit ñuy dox mooy ñi demoon jëndi seen logo essence yi ñëw teg muy doomu sénégalais yi rey nañu ñi ñi lakk seen kër yi met Alaaji Diouf euh, euh, Birima li yàq Auchan yi doomu sénégalais yi di liggéeyee mhm. Ousmane day tontu ci loolu tam déedéet yooyu yëpp Ousmane da ci tontu Ousmane Sonko man Coura Macky maa la day dem kasoman bu demul kaso man nañ ma dugal li mu def ci réew mi dafa rëy kenn bàyyiwul benn dossier ni ñay wax aji sar dugg na ci live fu mati trois pom barki démb ñëpp xam nañ ne xale bii di wax dafa am confiance mhm. yow ma yor ma ni yu kii lu gën a dëgër loolu ci àddina sa deret man naa ne vidéo la ñu ne dama la dama ak affaire bi ni mu aaye léegi man naa la vidéo dagg sa bopp bi jël bopp ki def ci tubaab noonu la aayee dangay dee ba wow koŋ sa mbokk yëpp yuuxu tubaab ñëw dugal la comment nga yeewu ok mani su Ousmane Sonko ne dafa bëgg réew mi daf ko bëgg a yor ñu jiiñ ko lu day ni viol ay bakkan dee ci bisnes su jàmbur yi takk nit ñi stressé wu ay fan Sénégal su ko jigee rek ma xam ne Ousmane Sonko deful dara. mais Ousmane Sonko biir prison loolu. ka mm-hmm. Khalifa Sall biir prison. Khalifa Sall biir prison. doomu président république maître Ablaye Wade ma di ko defal salut kaso kaso jombul kenn soo defee duñ la fay dugalee da ngay dem àddina day am justice réew su ko amul dootoo génn sa buntu ko bu ñu amulee benn preuve ci moom gisuñu vidéo gisuñu maniw gisuñu dara dina tax loolu mu dugg ci kaso non mais ba léegi preuve preuve kenn génneeku ko ci ñaari camp yëpp xam nga justice dafa garaaw justice ñun ñooy wax rek justice benn affaire boo xam ni la tey su ma la enregistré woon ni yow te yëgoo ko yow nga porte ma plainte justice dañ may laaj ndax man ba ma lay enregistré yow yëg nga ko su ma nee déedéet man dama am dina ma am problème parce que yow mën nga ma woo may wax ak yow ñuy waxtaan mais may wax whatever kon MC Niass lu nekk mën na ko ci fekk lu nekk mën na ko ci fekk dafa enregistré doomu aadama te yëgu ko is against the law sénégalais na nañu xam ni nit boo ko enregistré su lay yóbboo justice dan lay tëj su ko yëgee ok mais xamu ko ngay ratatati ma lay enregistré kaso laa jëm soo ci pressé ma dem kaso parce que du yoon MC MC man maa ngi koy doog xam ci yëfu aji yi ba mu commencé lay wax ak MC ca laa gëj a wax ak MC parce que nag ñu ne nga nuru sa baay nga donn ko moo gën am na yoo xam ni doo yee fitna ci réew MC bu fekkoon ni nee na moom waaw ah, wax na ma ko dinaa leen ko déglu neen du sëriñ MC moo ne nee na ma yow ñëpp mën nañ ma wàcc ci réew mi ba mu des yow ku yéeg ma dinaa leen ko déglu léegi di xàqataay nu mu ko neexee di ma jaay nee na moom bandi la jantal marala day génn ci boîte yi day jël ci xale yi barki sëriñ Babacar si MC ma wax léegi I don't believe uh, MC xaalis lay wut defe ni état yëfu aji saar yi dafay tax mais ñu xeex ak Sonko non président Macky talul Sonko 16 million habitants yuy jooy guddeeg bëccëg muy daw di wuti di andi. di jéem nan lay jëlee benn nit boo xam ni saaga nga sénégalais yëpp xas nga leen jiñ nga nit ñi amee Mamour Diallo. barki salaatul faati yàllaay lay waatal duma ko waatee ci e bu ma taxa wax lu ñaaw ci ñii Mamour Diallo aji saara ma wax nii aji yaa ma wax ni ma xawma Mamour Diallo dañ ma booleeg Mamour Diallo pour mu dimbali ma kaka booleeg Mamour Diallo xam nga tam boole ko Mamour Diallo ci sama xel man parce que xam na ni Sonko wàccul Mamour Diallo ci live bi mi ngi koy jiiñ lu ne yóbbu na ko justice ñu xool gisuñu dara ci Mamour mu jiiñ Mamour rek am ku gis aji ne ko Mamour day boo ko woowee ñaan ko dina la dimbale mm-hmm. aji moo ma wax ni ma maa woo Mamour mm-hmm. maa ko woo ñaan ko ndimbal li tax ma enregistré Mamour sama papa daf ma ni ma naa ñibbisi mm-hmm. dëkk ba ma ni ko papa duma dem am naa ñu ma dimbale damay xaar sama cour bi tribunal bi léegi ma ne xaaral ma enregistré Mamour ndax bu waxee yow papa xam ne li may wax dëgg la Mamour kenn déggul mu ne aji très bien li nga def dafa ni ko boobu man déglu naa ko dafa ni ko aji munaguma la dimbali passeport bi ngay wax munuñu la ko jox parce que dañ la tooñ il faut nga jeexal sa tribunal bi ñu lay dimbali nekkul dañ la tooñ bi moom ni Mamour Diallo bi mu ñëwee rek wax ak aji ne ko dañ la tooñ mhm. est-ce que nekkul côté boobu la ñuy waxee ne dafa far déjà ci aji of course su ma doon Mamour Diallo assommé naa Sonko yàgg na Sonko dafa bëgg Mamour Diallo dem kaso mhm. dafa bëgg ñu tëj ko foofu all whole <laughs> long time quatre-vingt-quatorze milliards human being munu ko sàcc it's too much loolu nga jiiñ ko doomu aadama yàq deram ci 16 million habitants te laalul. Mamou Diallo laalu ci yow 14 waaye yow 94 milliards maa fi xam nga la ñaata la yow dafa xaj fii fu ko Mamour di jaarale ci réew mi business bu nu seq la ci waa terrain boobu nga doon dégg Mamour Diallo jaar ci suuf wax ak borom terrain yi mhm. Ousmane ñàkk ñëpp dégg nañu Ousmane recevoir borom terrain yooyu nekk Tëngéej. Mhm. loolu la mere Mamour Diallo defe ni Mamour Diallo jër na quatre-vingt-quatorze milliards yi mu génn wax te ndekete amul mu singili ko affaire Adji Sarr bi ñëw rek comme moom la def ennemi. Mhm. mu ne lii mais waa Pastef nekkoon joxoñal Macky Sall ak Mamour boo ko deful rek ñu tàkk dugal ci politique mais boo Sonko loon politique politique du ci dugg Macky Sall la. Sénégal gépp yeewu brainwash ni Macky Sall la te Macky Sall barki yonti yàlla Mohamed talul Sonko musu ko tudd musu ko tas parce nit yi ñu ngi naan lu tax ñu ne état la parce que jigéen ñi ñu viole ci dëkk bi wala ci àdduna bi bari na surtout Sénégal jigéen ñi ñu viole bari na mais procès yi niñ koy toppee ba utal nit ki avocat politique bi dugg ci mosul am Adji Sarr am loolu moo tax ñëpp seen xel ne. waa léegi état la dégg nga ba ma commencé wax li ma wax ak li ma mujjee wax léegi. Mm-hmm. dama ni la. Sonko moo dugal politique ci lii Sonko dafa dem fanaane cukuru ba bor set mu yeewu yem ci lii bind ci miiram musuma fa dem man xuloo naa ci sama group ne leen eh, bu leen ko jiñ viol baaxul génne leen lii booba comme xaw ma lu xew Sonko def ci miiram. musuma fa dem cerveau yi ko wër ne ko dindil sa téléphone a tax ma bu ñuy xool sa téléphone xam ne dugg nga fa mhm. mu dindi ci la génnee victimisé wu wàccee loos bi rey baat bi man dama feebar xam nga sénégalais boo victimisé woo su ma génnoon léegi romb mbedd mii di jooy ñu ne Coura Macky ñëpp daw ndeysaan Coura Macky lan la dañu bëgg ku nu yërëm mhm. bëgg ku nu yërëm mhm. dama ànd ak jàngoro boo xam ne depuis ba ma nekkee xale ba léegi sama yaay faj na ma fas façon faj bu ne mu jigi gëreesu yeew nigga you lying to Senegalese people that's not true you talking to grown woman here Sonko ñu def ñaari fan ñu woo ko mm-hmm. Sonko génn senegal yëpp di ko xoolaat mu ne ma jabetuma ànduma ak benn jàngoro maa ngi wër képp maa fi wax ji waroon nañ ko tëj di wax leneen ci la sénégalais yëpp waroon ni ah am na lu xew. Mm-hmm. ñaari wax yi nag am na lu xew ñu ne vidéo nañu ñii ne audio nañu. Mm-hmm. ñu ne juge bi ne yooyu yëpp dara intéressé wu ma ci. Mm-hmm. man yu bii aji indi fii nii laa bëgg a xam ku ko moom xanaa bu fekkoon ne di Sonko carte gi jeex na. bu loon Sonko carte jeex na man sama deret nekkul ci yow man lan laay bañ Sonko na yeewi askan bi ñu tuddee seen bopp xamuñu sax lu tax ñu tuddee seen bopp yeewi askan wi nañ ñu yeewi liy jeex ñu xool yu baax yi Macky Sall di defal doomu réew mi ñu di ci wax di ko ñaax muy dolli man man lii laa nekk de sama yoon nekkul ci audio Baye Mbaye MC capable. mais mais tamit coow bi est-ce que du jur leneen. parce que daral du jur ñàkk nañ fi sunu 14 doom. dootul am. bu ñu jàppee Baye Mbaye MC comme li nga wax audio yi mën nañ ko ci topp ñu daal di jàpp tamit Ousmane Sonko est-ce que tamit dëkk bi. dama ni la jàpp nañ fi doomu président république Ablaye Wade jëli na avocat Singapour Hong Kong US euh, Indo danga nga sa justice bi xam nga lu ñu wax ñooñu dégage la justice bi wax ñooñu fii suñu dëkk la li ñuy régler ñoo koy régler gis nga sénégalais duñu xam tëj doomu président dafa difficile mm-hmm. il faut nga am ay preuve pour ko doomu aadama man Coura maki pour ñu tëj ma man du waxu fala fala sénégalais yi di indi seen preuve non sense yi de mm-hmm. justice dafa sérieux de ok Adji Sarr indi na vidéo bu neexee juge bi mu ne ko eh tegal ma lii nii ba ma pare. Mhm. li ngay wax laa bëgg xam mani yu kenn mënu ko fabriquer. Mhm. mani yu ci biiri jigéen bu ñu waree góor ñëpp dinañu xam ko ko moom. Sonko bañ génn tagg Adji Sarr sénégalais yi nañu move on. Mhm. ba mu génnee ka tagg Adji Sarr laa ni am out. mais actuellement avec audio yi ñëpp nee nañ Sonko am na ndam parce que Adji Sarr moom ndam day noonu kuy joxe ndam kan mooy joxe ndam kudul yàlla sunu borom bi ak justice bi toog jàng man Coura Macky lii may wax nii justice bi da ciy tepp da koy seppi daf ko jàng <laughs> day seppi yëpp yi ci dëgg teg nii jël kàcce ya teg nele mhm. loolu lañ jàng mhm. nañu bàyyi Sénégal justice def liggéeyam mais ba tey dafa mel ne aji dara saxu ko ci audio oh parce que gis nañ ci ay TikTok wala dara audio yi dafa génn mu génn di fecc damay wax ak aj yi damay jigéen bu am fit ñeme sama bopp gëm sama bopp wóolu yàlla ñeme fi ma jëm mhm. loolu laa ko wax mu def bu la kenn stressé du ma déglu buñ ne ma diw wax na lii wala diw foto nañ ko taatu neen mhm. mais du ko seetaan am naa ci droit mhm. benn meeru tubaab bu am cent ans moo ma ko wax tey ma jàpp loolu ba léegi mhm. nee na ma bëgg nga gudd fan ma ni ko torop mu ne ma bàyyil déglu problème mu jàmbur di ko def sa bopp bu dee bëccëg la da nga koy yendoo su dee guddi la doo nelaw moom mu nelaw ndax wax na la problème am arrêté ko yii nuy wax nii dégluwuma bëgguma dégloo xam naa Baye Mbaye MC man soo déggee li ma wax ak Baye Mbaye MC nga xam ni man ñeme naa Baye Mbaye MC xam naa li muy def ah ay doomi kilifaa ngi fi déggoo leen ci waxu sexe te gis nga nit bu la bëggee danga koy xam Adji Sarr taalibe euh, Baye Niass su fekkoon ni tey maanaam ma leeral samay wax ndax Sénégal dañuy yàqi wax même bu ni Adji Sarr tey dafa kàcc MC sëriñam la waroon naa xool neneen nu mu defee mais lii mu def nii MC du ci am ndam de mhm. aji nee na barki seex naa Mawlaana Ñas damay am ndam ci kaw Ousmane Sonko tata ndax Ousmane nanguwul wax mhm. li ko laaj nanguwu ko joxe mhm. maa ngi taxaw robu likra likra jigéen bu ko sol loolu na likra dafa ne ràccu sa kaw di mhm. aji aji jongal taatam bu baax woo di dox noonu sénégalais yëpp di ko xool li ma woo ci àddina naan ma kuréel yi ëpp na loolu yiw na aji bu defoon nii nga def nii dina ni yiw na ni ne ah dëgg li mu muuroo xale bi ni mu def yiw na mhm, mhm. mais yow xale bu peñe gara faasam tiire makiyaa su defi xef tëgal weenam sànni taatam ci ginnaaw sol likra ñëw taxaw ak yow aji nee na ma dama doon rëgëj rëgëji ma ne ko ragaju ko bu la nee jàkk ragaju ko day daw Ousmane ne nii rek doo wax mu ne nii rek waa lu xew mais justice la ñëpp war a wax gaaw leen. ci lii ñu move on. parce que problème bi wax nañ ko réglé sénégalais yi sax sonn. mu jeex sonn nañ ci ci kaawu viol. kii naan man la kii naan ko yow. li tax viol yi wuute Sénégal posé nga ma ci question. Mhm. nee naa la man sama bët fii ci parcelle Pël buy violer xale te xale bi góor la kat yaayam bu demee booy la bàyyi kook jànq bi bu jànq bi demee marché mu génne waa yàlla yi di ko sexal xale bi mu di ko nàmp ba dee daanu ci biir bi yaayam yegg ca liggéeyukaay mu mel ni dañ ko ñibbit mm-hmm. mu tourner rapidement fekk ko ci ci gémmiñu xale bi dafa ubbi fekk ko ci gémmiñu xale bi yaay ji dafa daanu ndekete xale bi biir bii néew yëpp sperme la dafa dee li jigéen li ñuy def fii ci senegal ci viol ëpp na ñu amee ñun jigéen ñi benn occasion bu ñu téye mais dañuy xeex viol mm-hmm. am na tey ay moo tax bu ñuy wax ay diw dafa biir am na ku ko ne aji sa yaay dañ ko ëmbal ma ne ko bu leen wax ëmb Sénégal mm-hmm. is a natural here is boo koy wax da ngay ñàkk sa parce que it's happening everywhere mm-hmm. bàyyi leen wax boobu mais ay waxu viol fii ci réew mi mm-hmm. su ma sañoon jigéen ñëpp dañuy jóg taxaw ba mu dakk parce que buñ la ko defee mm-hmm. sa àddina mooy yàqu soo amee jëkkër sax day jékki-jékki ñëw sa bopp day traumatiser jigéen lii dañ ko war a xeex comme kaaw aji njaay ñii bi ami njaay yooyu dañ ko war a xeex ñun jigéen ñi mais bi nga xam ne boole nañ ko ci mbir nag docteur bi dama ko seetaan dama ko yërëm mhm. gis nga nguuru Macky Sall mhm. mooy nguur bu gën a sedd ci bu ma fekkee ci ay dóor ak rey nguuru Ablaye wàdd daje naa xale bu góor Japon moo ma ko nettali yàlla mi ngi may dégg duma wax lu may bàkkaar dara ma ko ci Sénégal xam naa leen. sama bàmmeel boobu ma gënal. dañ ko yónni mu dóor journaliste cri oto ci M Zorom fi ñuy jaayee pizza. la ma wax ni ma dafa jënd pizza téye ko di dem sama angel laa yor gis nga kura ba ma ko ko dóoree nee na ma da doon daanu di tourner journaliste seen mbokk. ma ne ko lu tax def lii mu ne ma dañ ma ko sant mu xëy ñu jox ko passeport diplomate mu fly dem Japan fii Sénégal ñaata nit la ñu rey ci politique fii ma dégg ko man ñaata nit lañu ñu ma dégg ko man nguuru Macky Sall ñi ci nekk dóorewuñu reyewuñu Pastef ñooy def seeni yëf Mhm. di dóor nit ñi di soli marron beige di door nit ñi di def yëf mhm. di di di programme yëf yi pour ñu dee ñun sénégalais yi di yëngal gaz yi di yëngal train yi mhm. loolu dootul politique ennemi Sénégal la xanaa xamoo ne opposition bu amul état du liggéey effectivement mais bul indi ennemi train bi ñu bëggoon daane pour lan ñaata sénégalais lañ naroon rey gaz bi ñu defoon bëgg ko taal bu nu ko defoon ñaata sénégalais la ñuy rey dañuy rey doomu Macky wala Macky wala Marème wala kan ñun la Barthélémy Dias ba mu reyee doomu pauvre ñun pauvre yi dañoo jóg ànd ak Barthélémy Dias fal ko maire Dakar fal ko député ñun pauvre yi doomu politicien moo rey doomu pauvre pauvre yi ànd légitime défense yi nee nañu ku lay songo si boo koy tiire danga koy tire ci kanam nii lay tiire woo mais ko tiire ci ginnaaw da doon daw. te ci ginnaaw la ko tiire. ci ginnaaw la ko tiire ci digg ginnaaw doomu pauvre yaay ma ngi jooy ba léegi papa ma ngi jooy ba léegi bartale bi jaas taxaw ñëpp taxaw. mu jiiñ jabaru jàmbur njaaloo kooku am na ay doom yu day ni yow mhm. mu ne ami ñi bi jëkkëram biiralu ko sëfëram a ko biiral maa fi xel dafa ñaaw de mhm. surtout góor te ami ñi bi safara ma koy dawalal léeg-léeg ji maire la député munu ànd ak jëkkëram liggéey li ngay fay safar yi munoo ko dolli sa jëkkër mu bokk ci kër gi mhm. ami ñi bi lii la def mu ne kooku safaram moo ko biiral xale yi doom ay doomam mën nañoo dem école ñu leen koy ñaawale mhm. mën nañ leen ko wax ñu def ko seen bopp xale day jàpp mhm. ci premier magistrat bu Dakar Bartélé bi saaga na sunu arxuraan ñëpp dégg ko seen arxuraan bi jëriñul dara mais léegi yëfi yi la wala dañuy politique il faut ñu wax ci li yëfu senegal aji saar ak Sonko seen eh, justice bee koy àtte du man su ma ko doon àtte jeex na yóbbu naa Ousmane Sonko kaso yàgg soo ko doon àtte yow. yàgg na même amul preuve dem na xale ko jiiñ moom moom ma xale bi loolu moo tax bu doon Amérique gi dëkk. xale bi balaa ñuy wax dara Ousmane mi ngi jeel ba pare foofu lañ koy laajee xale bi dañ koy taaj di ko laaj façon investiguer bu ne di dina laaj xale bi xam nga bu ñu laaj laaj yu bari ci xale di ngay wax ay wax yu yu yu mm-hmm. bokkul. Mm-hmm. après di nga dinañ xool lan moo ciy dëgg bi. Mm-hmm. mais ñu ba Ousmane muy saaga réew mi ay nitam di saaga réew mi xoolal Mollah Morgun mel ni ko amul yaay di wax Marème Faye wax yu ñaaw di ko jiiñ ay mooy yàlla. di jiiñ di ma ko jiiñ man di ko jiiñ keneen ak keneen papa jàmbur yi il faut que ñu wax ci yooyu. mais Mollah Morgun nekkul nekkul Sénégal mu ngi mu ngi mu ngi. mais parce que du mën a ñëw senegal ndeyam loolu la liggéey ñi baax a ngi Sénégal fii di ko dund di tukki di dem ak ñëw boo ko xoolee sax nga xam ne day use crack nit simple du wax di def noonu muy def nit simple ñu ci bari dañu am mental problème. yi nga xam ne mu ngi la koy tuumaal. man day maa fi sama ginnaaw répondeur lu leen neex mën nañ ma ko wax xam naa sama bopp mhm. sama doom xam nañ ma ñi may àndal xam nañ ma samay mbokk xam nañ ma li ci des I don't care mhm. magum jëmm laa I lu moom Mollah Morgun wax yaayam la ko wax waa kawlak la te ñun danoo yaru am na yoo xam ne mënuñu ko wax waaye moom xam nañu yaayam ak papaam bu ñu neexoon tey dañuy dem ba kër Mollah Morgun photo yaayam photo papam filmer ko mais ñun amuñu njot boobu dañu bëgg senegal ñoŋ dañu bëgg dañu bëgg jàppale président senegal yéeg mm-hmm. du ma toog di wax yaayu jàmbur ay lesbienne papa jàmbur ay doomam di màgg nañu xool li ñuy wax mm-hmm. tey bu ma génnoon saaga yi ndayu Mollah Morgun ñu ne Coura Macky saaga na nday mm-hmm. te boo déggee wax bu ñaaw bi wax Marème Faye ci maire de nation xooloo dara Marème fay politikul Marème Faye ngi def lu baax nee na ma sénégalaise laa te moom laa bëgg a doon dañu ma bàyyiwul rek bu nu ma bàyyi woon damay woo jigéen ñëpp ñuy ñëw ñuy xamanteeg man ma nekk benn ak ñoom mais mayuñu ma ko mais lan la sénégalais bëgg ñu koy saaga ndey di ko jiñ mooy yàlla Tunkara def na ko Mollah Morgun def na ko te kenn ku ci ne yaa ngi yor Mollah Morgun moom moom amul jabar amul doom macha allah dafa galaase Tunkara am na jabar am na ay doom yu mag yu tolloog yow mm-hmm. xanaa booy wax jigéen dara nga jékki-jékki xalaat say doom mm -hmm. what goes around comes around mais Mollah Morgun bu déggee nga ni ko dafa glacé mbaa du defaat laaj mais Mollah Morgun man saaga na ma dootu man ku saaga Marème fay man boo ma saaga dina ma neex dina ma dina ma naqari ku xas njiitu réew mi wax yu ñaaw saaga sunu kilifa diina yi man boo ma saaga kuro du ma frega ñeent maa ngi avancé nii dama fiil avancé lu nu ma wax naa leen yal na leen yàlla soppi ci bon li ñuy wax jabaru jàmbur yi ak papa jàmbur yi ak yaayu jàmbur yi mais bu bartale bi daf man naqari te fi nga xam ni dañuy kàcc mhm. bartale bi dafa ni seeti naa Ami Njaay bi dafa ni Ami Ndiaye dégg naa biirul bi dafa ni dafa biir mais sëfëram moo ko biiril léegi maa fi wax yooyu lan la man man dama am brende laa ni ko nigga get the hell laa ko wax mégo sensi ci yow li ngay wax xamoo ko mhm. comme que yenn da ngeen di wax ñooñu ñëpp dañuy nax ci naxaate la mhm. est-ce tamit Adji Sarr par rapport li nga xam ne liste bi nga xam ne génnee na ko est-ce que du dem ba ne leen li mu wax Sonko yëpp naxaata la li mu leen doon wax ci problème déggoo wax naa la ko nee naa la Adji Sarr bàyyi MC def ko sadab bàyyi MC après moom day wuyu ji ma waxaat ko doomu sénégalais yi nit boo ko enregistré te yëgu ko kaso nga jëm kaso nga jëm am naa droit nga woo ma ñuy waxtaan nit dina waxtaan ak nit laa la wax te des fois wax bi nga wax ci lu dul dëgg ci sa waxtaan ak sa koo xam. waaw comme li mu wax foofu. mun mhm. nañ jàpp mais dama ni mhm. comme que nee nga yow ñi nekk député ñi nga xam ne ay journaliste lañ dañuy nax sénégalais yi. Ah. ma ne est-ce que tamit Adji Sarr tey bu génnoon ne mu leen doon wax ci digganteem ak Sonko yëpp dafa leen doon nax naxe ngeen nar a dundee. Adji Sarr mënul génn wax dañ ma doon nax nee naa la Adji Sarr fi mu taxaw dafa dëgër. Adji Sarr commencement bi tiitoon na 2002 la juddu mook sama caat mi bu may wax waxu Adji Sarr sax damay xalaat sama caat mi xel mi mani kii xale la ay mag dar ko mhm. man Adji dama koy woo nuyu ko laaj ko ndax mi ngi góor góorgóorlu musuma laaj Adji dara loo xamante ne ni ci vie privée la dama ko sax xaw a rus man mënuma laaj nit ñi yenn yi mhm. lim ma wax man dama ko believe ndax dama ko dund fii senegal gis ñu ñu ko def du benn du ñaar mhm. nee naa leen bu xeex jotee nañuy dem ci néew di doole bi dolli ko doole mhm. boroom dërëm mhm. li ñuy def ci réew mii ñëpp xam nañ ko xam nga ni sa caméraman bi du dem di fay benn bés cinquante mille de <laughs> cinquante mille benn bës ñu sotti la mant def ci chocolat di la mar nga jaawale ko gere si yeew Ousmane Sonko dafa nax sénégalais yi te léegi yi yeewu yëpp xam nañ ni waa ji lu mu fa wuti woon ba yi yëpp mm-hmm. lan la wuti woon sweet beauté sweet beauté ci anglais sweet mooy lu neex mm-hmm. des fois mën naa mën nga ma mm-hmm. defal dara ma ne la oh baby you so sweet lekk dara ni oh it's so sweet dem fenn ne oh mu rafet neex nga ne oh is so sweet sweet beauté fii lu neex lañ lay defar ba pare dañu am ay beauté ñu rafet. Mm-hmm. cagatu nday nday nday nday xadi day dem limousine dafa ubbi bérébu caga def ci xale yu am 18 ans ñuy fayeeku di summi seen moromu papa góor mhm. xale bu ndaw sumi la tëral la fii fay lamp yi tegal la musique bu douce di la bës mhm. nañ leen waxante dëgg Ousmane yàqu na Ousmane Sonko dossier bi képp ku ci dugg rek da ngay commencé am ay problème am na nañu naan sax euh, bi nga xam ne accident bi nga xam ne Gabriel kan def na ko te mu doon jàppale Adji saar ba dem Europe pour faju ji ñëpp ñu ngi ciy wax ndax yëg nga loolu <laughs> I don't believe it man kenn brainwash ma man yàlla laa gëm mm. nit ñi dañuy xëy di accident doo nit ñi dañuy xëy di daanu seen tànk di dem doo leen xam. waxi sonko gi dafa fekk lépp nekk fi. yàlla su bindee ci Gabriel dafa ax day accidenté day accidenté keneen ak keneen ñaanaluñ ko ko. ñoom fu mu nekk nii. fu mu nekk nii bu ma nee woon dafa dama feebar ñu ne Sonko ma jàpp man believe ma yooyu man Sonko ak commande man believe ma yooyu yàlla laa gëm lu ñëw ci man rek suñu borom la gis nga boobu mentalité boobu brainwash bu ñu tiitalee sénégalais te sénégalais mooy tiital sénégalais yàlla moo fi ne lu dal nit yàlla mm-hmm. waaw kay mm-hmm. accident moom yàlla la chauffeur bee doon dawal. Mhm. accidenté na dara jotul Gabriel. Mhm. oto ma mbëkk. ñu jël ko rëyal ko. Mhm. dara jotu ko. dañ soxor. bu nu sañoon mu